na la lii gis nañ ko ci ay réew yu bare bare fu mel ni Ghana fu mel ni Cap-Vert fu ci mel ni Nigéria bu mu leen jaaxal loolee du dara te Macky dafa war a li nga xam ne maanaam mooy constitution bi te askanu Sénégal gi nga xam ne ñoo ko daal di sëkkatal ak pression bi nga xam ne moo jógee ci bitim réew loolee bokk na ci li tax Macky Sall daal di deltu loo xam ne dox na sama diggante ak Macky Sall ni ay contact maanaam ay waxtaan ndax journaliste bi daf ko laaj na ko Ousmane Sonko ndax Macky Sall jamono ji yéen ñaar yéen a ngi jokkoo wala am na ñu nekk seen diggante di jokkoo Ousmane lenn loo xam ne lu ci am la moom njiitul Pastef démb daan nay wax ne ay at a ngi nii Macky Sall wu ci man jël nguur gi di ma jaay doole jël ñi nga xam ne tamit ñuy ay milice Ousmane Sonko ci biir journal bi daan nay wax ne sama kër sax démb ba tey courant amu fi te bi ñu woowee ki nga xam ne mooy électricien bi ngir mu defar courant bi dañoo lank ba tëdd sa naaj wa ne du dugg ci kër gi Ousmane Sonko nee na ordinateur portable ma kër yim dend la koy yóbbu ngir chargé ko moom Ousmane Sonko nee na lépp loo xam ne sacrifice la ngir nag Sénégal mën a am jàmm moom Ousmane Sonko pare na ngir def ko li nga xam ne parewul Diouf pour def ko maanaam ñu koy jéem a santaas wala jël paaka te ko ci booleem wala Macky Sall jël justice bi di ko manipuler wala force de défense et de sécurité yi loolee Ousmane Sonko nee na du ko nangu tey du ko nangu ëllëg nee na lu jëm ci wàllum liberté ma maanaam du ko négocier nee na amul lenn tamit loo xam ne jàppal na ko Macky Sall ci lu ñaaw ci ñaawteef ci ay een ak yeneen ak yeneen moom jiitul Pastef nee na nag am na loo xam ne damaa bëgg mu leer élection présidentielle 2024 mënuñu ko organiser ci réew mi te bokkuma ci wala bu ñu ko jéemee réew mi dina dugg ci kaaw boo xam ne maara loolee kàddu yi Ousmane Sonko la nee na bu ñu ko jéemee éliminé ci élection présidentielle 2024 Sénégal ci kaw lay dugg waay Ousmane Sonko ci biir journal bi nee na élection présidentielle 2024 premier tour lay gagné élection yee ndax ñi ëpp ci askanu Sénégal moom la ñu àndal yéen a gi di Vox Populi Ousmane Sonko nag nee na yàkkamti na loola maanaam ñu daal koy teg loxo comme nag nguur gi ñoom loola la ñu seen logique boobee na waaw Ousmane Sonko nee na ñoom logique bi nga xam ne jël nañu ko nañu ko yeggale bu boobaa danañu xam ne bés yi góor a koy bàyyi yéen kaay gii di bés bi xëy di ñu xibar naan ñu defante bi nga xam ne jamono ji moo am ci diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko kañ lay jeex kañ lay jeex yéen kaay gii di source a xëy di ñu xibaar naan ñu réunion bi nga xam ne Macky Sall woote woon na ko waa APR Macky Sall nag bu mu ñëwee ba ci réunion ba ginnaaw bi ñu toogee da leen a jox ab liste ne leen képp koo xam ne bëgg ngaa nekk candidat bindal sa tur ci liste bi waaye nag Amadou Ba di Abdoulaye Daouda Diallo di Aly Ngouille ñëpp silence du cimetière maanaam gis nga ay armeel ay cimetière maanaam boo fa rombee ni mu naan tekk noone la Amadou Ba ak Aly Ngouille Ndiaye ak Abdoulaye Daouda Diallo na tekk kere sa réunion ba waxuñu Macky Sall nag la mu mujjee defa mooy léegi seeni courrier yónnee leen ma ko yéen i kaay gii di direct news na maire yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar ñoom nag mer nañ ba maara de taali mer nañu lool ki nga xam ne mooy Omar Ba Omar Ba mi nga xam ne moo jiite kuréel gi ëmb maire yu Sénégal ndax Omar Ba mi nga xam ne moo leen yóbbu fan yi ñu génn ca palais ba exposé leen maanaam ñu yebbee di xal xalamal Macky Sall te Macky Sall bokkul ci élection yi loolee moo metti maire yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar ndax ñoom nee a avant ñu leen di yóbbu palais waroon na leen na leer ne Macky Sall day bokk ci élection yi waaye waxuñu leen dara bàyyi leen ñu dem palais ba di yebbeeku te Macky Sall nekkul candidat loole nag ñoom dañoo gis ne Macky Sall da leen a humilier maanaam da leen a toroxal yéen i kaay gii di leen foo ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky na bu jeexalee nag biir réew mi lay toog moom Macky Sall nee na du génn Afrique journal na bu jeexalee képp koo xam ne yaa jiite Sénégal Sénégal pare na nag ngir jox la ay conseil bu dee soo ko bëggee yéen a kaay gi di Sud Quotidien moom jiitu réew mi di président Macky Sall nee na investissement bi nga xam ne moo njëkk lu jëm ci wàllum jàmm la wàllum sécurité wàllum dal wàllum état de droit yéen a kaay wal di xëy du ñu duñu xibaar naan ñu Macky Sall nag bu fégalee am na lu neex loo xam ne moo koy xaar ndax nag ancien président yi dafa am avantage yoo xam ne yu neex yoo xam ne moo leen di topp ndax dinañu la fay weeru toll ci fukk million danañu la jox lu toll ci ñaari oto danañu la jox téléphone fixe danañu la jox logement jëloo logement boobee quatre millions cinq cent lañ lay jox ne indemnité lu jëm ci say billet avion ak say jege ñaale ak lu jëm sa wàllu wér gi yaram nguur gi moo koy jël en charge yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ñu réew mi TV jotaan na ci li nga xam ne mooy signalam canal 108 niki démb ci alxames je canal 108 bu TNT président Mbagnick Diop moo ko lijjanti journal bi nee na moom rek mën nañoo ko waxee noonu waaye tamit daan nay jaajëfal bonne volonté yi nga xam ne dugal nañu ci seen loxo yéen a kaay gi di Libération nee na Birame Souleye Diop jamono ji ay mbiram jeexagul soo moytuwulee information information judiciaire lañ ciy bi nee na tey jii la ñu koy defeere yéen kaay gi de la turbina daanay dikk ci manifestation yi nga xam ne moo fi amoon 2021 nag deret yi nga xam ne moo fi tuuroo ak ñi nga xam ne ñooy waa France waa France ni ñuy joxe ay armes de guerre Sénégal gir nag ñuy dal ci kaw ñi nga xam ne ñooy manifestant yi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na nag ni ki suba le 18e édition des corridors du MEDES président Mbagnick Diop daan nay na mbégte amalaat bi nga mooy corridor 18e édition bi